man man maay euh, Alassane Diallo directeur général industrie chimique du Sénégal euh, maa ngi leen di gërëm ci seen visite xam nga tey administrateur yi toogal état du Sénégal ci conseil d'administration bi ñoom ñoo ne woon dañoo bëgg a dañu ñëw visiter ICS pour fu ñu toll ci liggéey bi parce que ñoom ñoo ngi suivre liggéey bi parce que ci conseil d'administration bi lañ bokk ñoo fi toogal état bi mais xam nga dañu jot ay rapport di jot ay kayit mais xam nga nga ñëw gisal sa bopp loolu am na importance tey moom moo taxoon ñu jóg ñu ne dañuy liñ jàppoon ñoom ñëpp sax dañoo bëri liggéey Dakar mais ñu ne tey moom dañu ñëw yendu si fii visiter lépp gis nga visiter nañ miin bi ak euh, Daaru ak Cefix ak centrale électrique bi pour xam exactement ndax liñ leen di wax ci rapport yi méngoo na ak li li xew fii donc euh, ah yàlla def na ne liñ bind ci rapport yi moom lañ gis fii yéen tam gis ngeen ni installation yi demee xam nga ñi xam tuuti ICS xam nañ ni situation bi mu demee nii bokkul ak ni mu meloon il y a à peu près un an et demi situation bi tane na bu baax actionnaire bu bees bi ñu am bi tudd Indorama euh, lim dugalagun ci entreprise bi depuis bi mu ñëwee euh, ëpp na deux cent millions de dollars mais loolu yëpp euh, ñoo ngi ci gërëm monsieur le président de la république parce que moom bi mu bi mu ñëwee. moom moo définir orientation yu claire son ministre Aly Ngouille Ndiaye appliqué ko ñu ne dañuy seet actionnaire bu am doole bu mën a téye société bi yàlla dimbale ñu ñu tombe ci Indorama Indorama li mu waxoon yëpp mu ngi koy def ci également xam nga société mënta fonctionner ci état bi jàppalewu ko amul benn domaine bi nga xam ne état du Sénégal euh, jàppalewuñ ci fu ñu wax état du Sénégal dimbale ñu ci lii état du Sénégal bi mi ngi ñu ci dimbale donc ñoo ngi gërëm également état du Sénégal ci ndimbalam voilà. centrale électrique bi euh, xam nga euh, jafe-jafe ci courant euh, xam nga loolu am na Sénégal loo tax ñu ne le temps que gouvernement bi régler problème boobu nun dañuy def suñ centrale bi nga xam ne dana tax léegi nun comme ci clients yi gën a mag ci Sénélec lañu liñ doon xëcc ci Sénélec muy vingt mégawatts mën nañ ko delloo Sénélec bés bu ñu amee suñ euh, centrale bi mais comme nun li ñuy am ci courant dana ëpp li ñu soxla danañ mën a jox sax Sénélec huit ba dix mégawatts su ko defee Sénélec dana récupérer lu jege ci trente mégawatts ñu xalaat ne loolu dana ko mën a dimbale parce que Sénélec suñ partenaire la ay relation yu baax moo dox diggante ICS ak Sénélec ñu xalaat ne loolu dana mën a dimbale Sénélec euh, pour liggéey bi ñuy liggéey pour. Euh, Euh, régler problème mu approvisionnement électrique bi Sénégal euh, xam nga ci jafe-jafe ñu nekk yëpp mosuñu wàññi benn emploi ñi fiy liggéey yëpp dañ leen a conserver euh, su ci yàlla àndee ci année 2016 bi danañ tëral benn plan bi nga xam ne dañ seet nu ñuy recruter ñu bees ñuy dugal ci société bi notamment ñu gën a nekk xale pour. Euh, Euh, pour former leen ñoom itam ndànk-ndànk ñu yëg ci société bi